ji euh, euh, jaba jaba euh, jaxate ba ba jaxate nee fi léegi cette question il y a il y eu des listes au niveau départemental qui ont été déposées et qui n'ont pas respecté la parité muy de la part de l'opposition comme de la part du pouvoir ma bëgg a mu njaay ndax loolu dëgg la parce que yaa ngi woon ci biir affaire bi beneen affaire bi ci topp mooy mu njaay tout à l'heure bi ngay wax ci waxu Déthié Fall ne wax ngeen téléphone man ci bu ma juumul dem dafa mel ni da nga affirmer da nga gëm li la Déthié wax alors que suñu waa ji opposé na la benn affaire boo xamante ne mooy acte tu as parlé moom mooy wane ni tant que acte génnul munu munoo dem wuti recours donc jusque là on ne peut pas dire que cette liste elle est parce que recevoir gu leen acte mais dafa mel ni sànq bi ngay wax tu n'as pas pris la précaution de dire si okay. non maa ngi ñëw beneen affaire bi mooy cette question de la parité mais parité ñun dans notre vie de tous les jours la parité el n'est pa respectée senon c'est ki femmes man Charles du togg tey suba jabar ji togg buuba du fóot tey suba jabar ji fóot non voilà charte la non non non parité tekkuwul loolu tekkuwul loolu. la parité. non bu leen ma bu leen ma parax parax man man dañ may fóotal di ma paaseel di ma toggal añ di ma ko tagal sama diggu kaw laal. parce que non mais loolu du ah, parité dama koy joxe à un niveau ma la xanaa doo ko lekk. dal non lan. ku la xool de li ma jaaxal mooy bi la ko tegalee pare. non non non moi c'est. li ngay wax ni àndul ak li nga mel. non non non non être gros et être sain c'est différent. doo lekk dara. être gros être gros et être sain c'est différent. xamante nañu gros sain il fait distraire parle da lay distraire xam nga ko. moo ko tey de. xam nga set set li ñuy wax parité est-ce que à Touba on a une fois respecté la parité non je pose une question. Elle Parce que notre démocratie, elle est sponsorisée. Une démocratie sponsorisée par la Banque mondiale, par euh, l'Union européenne, etc., etc., oui. elle ne peut pas tenir compte des réalités socioculturelles. Ouais, Et les acteurs. À Touba, il locale. Non, non, non, ah, non, non, non, non, non, non, non parce que boo demoon élection de liste aussi. non dama ne la parité non la parité elle n'est pas non dama li may wax dama ne. même parité yooyu ñuy wax même bu fekkee daño bugg suñu démocratie taaru. même booy composer liste yi tu as des problèmes pour am des des femmes. les gens ont des problèmes pourquoi c'est pourquoi ah. loolu. nit ñi duñ ko jël en non parce que pour man une loi elle dafa war a sukkandiku ci. Euh, ci dundu doomu aadama yi. d'accord na on dit fii ku fi sàcc nañu dagg sa loxo parce que effectivement sàcc tollu na foo xamante ne effectivement nit ñi amatuñ ci yeneen pexe tëj nañ kaso def nañ lu ne sàcc bi gën a yokk mais mais Malal virgule boobu plaidoyer bi ngay bu ñu war a def. avant ñuy voter loi. exactement mais loolu laa bëgg wax mais oui mais mais lan laa lay wax. dama ne ce débat même va se ah poser après. dama ne dama ne ñëw après. dama ne loolu ça veut dire que débat con. oui non dama ne la Bouba. man maa ngi daw man maa ngi daw en train de répéter exactement ce que je dis auparavant non non non non non c'est-à-dire xam nga lan mooy li ñu war a. mooy déedéet déedéet en train de. déedéet non non non non non moi non non non moi je suis pas en train de dire ce que tu as dit. non tu ne dis pas tu le redis. non non non je ne suis pas en train de redire tu as moi je dis ce que je suis en train n'a rien à voir. on ne peut pas revenir ah non non non wax ni ah, taxawul. ah non wax ji. référendum référendum ah, non non non. référendum avant référendum ah, non dama ne permet de dire quoi ça me permet le dialogue waxtaan bi Fadel di wax